asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki senegal seen mbokk Makhtar Sarr tey ci alxemes ji laa soog di jot plainte bu Wally sekk gannaaw boo xamee ne annoncé woon na ko fan yële euh, ñaari fan yëpp mbokk yu bari ñu ngi may woo di ma wax ne dégg nañ ne Wally Seck def la plainte waaye jotaguma ci woon euh, niñ ko gisee woon noonu laa ko gisee niñ ko doon déggee noonu laa koy déggee mais tey ci alxames ji laa jot plainte bi mi ngi nii ma téye sama loxo muy citation direct nga xam ne ni man la ci cité ak Jupiter Diagne bi nga xam ne moo jiite DTV ak groupe Excaf woonu euh, ci tribunal ci kanamu procureur le 11 août incha allahu taala euh, ma leen di wax nag ne jot naa ci ak xol bu sedd guy nu ma ko bindee sama page Facebook ak kontaan lool ak kontaan lool. bi ma jotee plainte ak citation direct ci lan laa ko jotee ci waaru diine ci lan laa ko jotee ci dénoncer lu bon ci lan laa ko jotee ci bañ ñu promouvoir ak ngóor jigéen ci senegal bañ ñu promouvoir ak ngóor jigéen ci Sénégal en tant que Makhtar Sarr nag mi nga xam ne coordonnateur bu ànd sàmm jikko yi man maay vice coordonnateur bi bi ma jotee ci citation bii nii Ababacar Mboup dem nañu gisee woote réunion Euh, bu jàmb ba ànd sàmm jikko yi daje nañu waxtaan nañu lañ ca jël ci dogal incha allahu taala coordonnateur dana ci ñëw ak taxawaay yi ñu ci war a am waaye ma leen di wax rek di leen fàttali ne leen maa ngi conscience bu tranquille yëgu ma ne sax ku tudd Wally Seck mi ngi dund tey laa soog di xam ne Ibrahima Wally Seck la tudd bi ma gisee citation bi ñu bind ci turam may wax la mu waxoon dafa waxoon bi muy def vidéo bi ne bu ko kenn ñaan njekk ci pour mu dellu ginnaaw ci li mu nar man maa ngi waxaat lu ni mel ne ñaanloowu ma kenn njekk sama diggante ak Wally Seck Wally moo porté plainte Makhtar Sarr ñu war a dem ci yoon na doom neex ndeyam na doom neex ndeyam yëgaluma sax sama yaram ne porté nañ ma plainte conscience bu tranquille laa man li may wax làmbatuwuma ko waxuma waxu mbedd waxuma waxu kuy foraatu ay preuve yu leer laa am ci li ma wax ci luy promouvoir ak ngóor jigéen te fuñ ma woo ma génne ko su ko defee nag euh, damay was lu àq rek ndax soppe yi faw nga massawu leen ak am di jàmm yi ndax kenn ku nekk wax dëgg bu déggee boromi mbokk wax dëgg boromi mbokk la boromi soppe it boromi soppe la ku ne bu déggee dana am euh, diisu xol waaye kii mu dal ci kawam de xol bu féex la am xol bu dal la am xel mu dal la am ba tax na incha allahu taala ñu ngi wéy di doxi suñuy soxla bu soobee yàlla ñu ngi wéy di def li war a def li ñu war a def bokk na ci ñu jël ñu ni tamit suñuy avocat ndax <laughs> fi ñu woo moo ko laaj mais nag avocat bu mag bi jël nañ ko ba noppi muy jalla jalaaluhu wa abda kamaalu rabbu samawaati wal ardi rabbu samawaati wal ardi kooku lañ def muy nekk suñ premier avocat te jël nañ ko ba noppi in tansurullaha yansurkum ñun loolu la ñu gëm dañoo ne li ñu nekk ci waaru yàlla la nu nekk kon sunu premier avocat sunu borom lay doon loolu moom mooy li jiitu la nga xam ne nag moo koy formuler ci mbirum avocat ci biti danañ ko jël su ko defee nag lu mu laaj rek incha allahu taala ñu def du ñu dellu ginnaaw du ñu reculer du ku nuy xoqatal du ku nuy xuuxal pour ñu dellu ginnaaw dañu yor benn agenda boo xam ne dañ koy dérouler mooy dañoo bëgg Sénégal zéro góor jigéen bañ fee taxawaat loolu lañ bëgg vers criminaliser góor jigéen ci la ñu nekk Wally Seck ku ndaw la ci biir li ñu tax a jóg taxu ñoo jóg sax dañoo wër mbooleem réew mi lañu wër dem ci mbooleem xalif généraux yi ñu jox ñu seen kàddu jox ñu seen baat tey li may dénoncé di bañ ñu promouvoir ngóor jigéen Touba dañ cee ànd ak man Tiwaawan Njaasaan Canaba jàngu bi Voie Sacrée bi association islamique yi ñëpp danoo ànd ak man ci li may dénoncé ngir bañ ñu promouvoir ngóor jigéen ci senegal kon nag kuy waxee ci làmmiñu ñi ma tudd ñëpp doo la doo dellu ginnaaw du Maxtaar Sarr lañ amal affaire waaye ñi Maxtaar Sarr di wax te loolu incha allahu taala dana feeñ balaa yàgg jërë ngeen jëf ñu ngi jéggalu bu baax a baax kàddu yi wasalaam